waxee wax na ne ci ndigalal yàlla lay doxe waaye ci biir nit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci gunge Seexul Xadiim bi nga xam ne mooy borom bi loolu Seex Murtada bi ñu si bu réeree xam ne ko 1975 ba ni mu génn àddina ci août ba tey léegi 2004 mu bàyyi fi liggéey bu am solo ak résultats yu am solo ay école yu bëree bëree bëri donc waxoon nañu ne ñu ngi koy defal ci diggante quarante neuf ba cinquante mille ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon lu gisee am di jóge muy lu am solo loo xam ne kon nañ ko delloo gërëm ndax sàmmam boobu mu sàmmoon léegi yàlla defal na ko ci taw bi taw bi bu rëy mu wàccee liggéey ci anam boobu la Serigne Mambo ñëw daal di jël léegi liggéey boobu yëpp moom it ne ci yàkkali ko lool ba yàlla ko lool yàlla defal ko ci taw bi léegi bu ñu waxee Cheikh Moustapha ñu ngi fi bàyyi woon diggante quarante neuf mille ba cinquante mille la jamono bii yaakaar nañ ne bi ñu defee instant yi yaa ngi lii tee asalaam téeméer bi ñuy élève bëri na léegi tey ñu mel ne kon kon sëriñ Maam moom yokk na yàqali na tey saa soo ko sax wax wax bi damay wax ne téeméer bi ñu yooyu téeméer bi ñuy maam moom la cent pour cent ndax amul benn élève bu mu si pour la bàyyi woon deux mille quatre nga ne ci asalaam bi jaay ba su jamono te instant bi yaa ngi yaakaar naa ne li koy def daaw ak ren xool bi ñu doon def sant yàlla ci jàpp na yàlla defal na taw bi askan bi mu am aw loo xam ne moo xam ne nit ki mën naa judd di jàng li muy jàng ba àgg ca dara yu kaw yi ca lu génn askan loolu mooy lan kenn ku nekk xam na ne école yu bari bari am ay crèche muy xaajaata nga tàmbalee ci ci daayee dem si candidature bi ba ci solo ba am bac boo am ne bac université Ba bi ñuy dégg ñu soxla ko ci Al-Azhar ba am licence alhamdulilah loolu moom loolu lu ñuy wax am benn benn ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay licenciés ci transhumance bii ñu pass master bi incha allah ko tàmbali kon la ñuy def rek ma doctorat nga xam ne kon loola maanaam aw doxalin la système comme li loolu la ñuy ñu waxee système intégral la boo xam ne loolu état moo baaxoo woon di ko am waaye yàlla defal na ko askan nga mën a tudd jàng li nga war a jàng lépp te doo génn mu astafar yi ba kenn ngay am ay sa master la ba ba kenn say ngay am sa master de jamono ji ak moom yaakaar nañ ne doctorat bi nga sama laaj loolu toppee la yoo xam ne nii yaakaar nañ ne fii ci Sénégal comme moo ko def nag maanaam benn établissement bi kese kese kese moom la fi yàlla defal toppee loolu mooy mu am. kon ndokkeel ci Seex Mustafa ba ko soxla ci ndigal suñu borom waaye it ndokkeel ci Seex Mamadou ki nga xam ne moo àggale ndox ba ak si ko fii muy lu am solo loo xam ne kenn du nekk xam ne université ci anam ba muy joxe anam ba nga xam ne ba ngay mën a jaaree lu gudd la lool te yàgg lool te nekk lool waaye nag yàlla ñaata ci kaw fii ba nga xam ne kon loolu la moom leneen la ñuy wax kay waaye loolu moom ñu ngi sonn gannaaw kon jëm yi ko taxawoon jëm la ko say naan daal ay ak wasa ko asir waaye tawoon na la ba xam ne moom Cheikh Mamadou nga xamante ni bii moo yore léegi liggéey xëy na li mu guddoon ndax dana dañuy dalal rek bëgguñoo jël dara ci seen problème daal loo xam ne léegi daanaka wala mu jël seen waxtu xanaa rek am nañu xalaat danaa bu ñu ndokkeelee ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal mu séggil azal mooy sunu doom yi ak sunu jarbaat yi nga xam ne am nañu ndam ndam lu rëy rëy ndax nag nag li ci gën a dàq gën caa neex mooy mbooleem mbir boo xam ne dafa jëmoon ci lislaam ak saxaaf islaam yi lépp ñu ngi duggaat ci biir asar loolu lu am solo la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la ndax asar kese lépp ci ay établissement yi jàngale ji ne waaye yaa ngi fa demee toog ak kon suñu doom yooyu ak suñu jàmbaar yooyu ñoo ngi leen di ndokkee ci toog fi yooyu nga xam ne yàlla defal na leen di soññi ñoo ñi nga xam ne ñoo leen doon teete ba yàlla na doon ñu def ci ñoom xam-xam boobu ak ñoom boobu maanaam ba ñu am résultat yooyu muy ustaas yi nga xam ne ñu leen yoroon góor yi ak jigéen yi ba ba ñu am ndam loolu ba ñu àggante ba ci concours national am fa juróom-ñetti kano yoo xam ne lépp askan yow foofu rek laa amoon xalaat xalaat mooy dafa mel ne ba léegi losu di des xalaat bi ma am mooy dafa mel ni ki doon wax ci microcentral day wax ne institut privé Serigne Dame Abdourahmane Lo Mali Cheikh Amadou Fadou Guédiawaye Serigne Dame Bousso Touba Cheikh Amadou Bassir Thiès loolu ma jàppoon ne xëy na bu ñu bu ñu ko coordonné woon ba mu nekk institut Azhar ndax dañu foofu concours national nation bi yëpp ñooy dégg ndax bu ñu waxee institut Sëriñ Dame Abdourahmane la bu Malika day mel ne moom benn institut privé rek la comme ni ñu tuddee Mariama Ba di ko tuddee keneen ak keneen ak keneen foofu dafa mel ne bu ñu doon tudd Azhar ci lay gën a nasoo nation képp xam ne maanaam institut bii kat Azhar la tudd waaye lii am xaaf la ci Azhar waaye bu ñu nee privé privé rek c'est naa waaye comme ne institut te am na lu ca nekk privé boo bu ko wootee woon Azhar Sëriñ Dame Abdourahmane la Sëriñ Bakary Moussa Cheikh yaatal ko ba tey jii mu àgg fi mu àgg nga xam ne tey bokk na ci këri jàngalekaay yi nga xam ne ñoo ëpp taxawaay ci réew mi ñi nga xam ne ay nit ñoo taxaw doon ay waa réew mi am yëg-yëg am yitte ci taxaw waa réew mi ci liggéeyal réew mi liggéeyal diine ji ba mu àgg fi mu àgg moo tax ñu bëgg indi lenn rek ci jeexiti liggéey boobu boo xam ne li ñuy wax nii lenn rek la ci waaye fi liggéey bi àgg dëgg-dëgg ak majaalaat yim laal mën nañoo wax ne la ci war ci liggéey defaguñ ko waaye lu yaatu yaatu la euh, li ñuy tënk fii rek mooy ñi nga xam ne génne nañ ci daara ji ame fi ay lijaasa te tàmbule ci lijaasa bi fi gën a gënoon a kawe mi baccalauréat waaye moo moo asasatu asar al islamiya ak nag ci jaamiat Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne moom la Serigne Mamor sof ci liggéeyu booy juróom bu tedd bi wéyal ko ci tënk yooyu li ko tàmbulee ñi nga xam ne mas nañoo jaar nañ ci daara ji bu am fi baccalauréat xam nañ ne 2000 93 1993 lañ fi njëkk am ay bac boobaak léegi lu mat 7237 ci ay dongo daara dongo amee nañ fi baccalauréat juróom-ñaari junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne juróom benn téeméer ak juróom fukk ci ñooñu tey jii état bi jël na leen ñu ne ci biir système bi di jàngale di yar nga xam ne kon bokk na ci ñi ëpp ñuy jàppale état ci dugalal wutal ko ay jàngalekat ndax ràññeekook ñi fiy génne 7237 yooyu am na ci 660 yoo xam ne tey jii ñi ngi ci biir système bi di jàngale diine di jàngale arab ci école publique yi kon ñi am baccalauréat bu Azhar rek lim boobu lañ toll waaye bi ñu xam ngeen ne euh, ba ñu tàmbalee organiser depuis 2013 ay baccalauréat ci état bi boobaak léegi it 8139 bokk nañ am nañ ko ay candidats yu ci bokk ci lim boobu 5214 5214 amee nañ ci ay baccalauréat yoo xam ne ci baccalauréat yu officiel yu état bi la. kon ci biir 7237 yi am nañ ci 5214 yoo xam ne yëpp am nañ baccalauréat yoo xam ne état bi boo ko xoolee 64 virgule 06 pour cent lay doon 64 06 virgule 6 pour cent di liggéey bu rëy rëy boo xam ne ku xam jàngale ak xam fi réew mi toll ak xam diplôme boobu ni mu amee solo da nga xam liggéeyu yu ci wàllu googu waaye bi ñu tàmbulee di bokk ci concours général yi nga xam ne dañ ci dugal làkku arab ak njàngaleem lislaam de 2020 nga xam ne ñetti at la 2020 21 22 ci ren am nañ ñaar fukk ak ñaar ay jawaïs ay neexal yoo xam ne ci concours yooyu lañ ko amee ay dongoy aseur am ñaar fukk ak ñaar loolu kon di liggéey bu yaatu boo xam ne Euh, ku xam jàngale xam ne doon lu tuuti waaye nag ñooñu noonu dong yooyu ñu wax ñu am euh, shahadaat yooyu ak jawaïs yooyu ñu am ñi ngi ci biir fukki markas ak benn maanaam ci réew mépp lañ nekk fukki centre yu mag yoo xam dafa ëmb ay écoles yu mag a mag am na Azhar am na ci fukki centre ak benn yoo xam ne la ci nekk ci ay école mat nañ ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ña fa nekk ci ay dongoy daara mat nañ quatre vingt mille neuf cent cinquante-deux juróom-ñeent fukki junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñaa nga fa ci ay dongo yaa ci ay ay ay ay dongo yu jàng ay góor ak i jigéen loolu it di lim boo xam ne jàpp nañ ne état rek mu mën a saytu tol noonu ci daara ji mi ngi saytu léegi lim boobu te li ñuy wax nag 2018 la yem li tàmbalee 2018 ba nem ba agsi 2022 bi ihsaa yi paree ko moo tax mënuñ cee wax lu leer waaye lii fa la toll woon tey mën nañ jàpp ne kon li mu ñuy wax nii weesu na ko bu baax a baax ndax at mu jot ay école a ngi yokk ay donga ngi yokk lu mat 1901 ci ay jàngalekat ñu ngi ci biir daara ji junni maanaam ñaari junni yu manqué tuuti ñu ngi ci biir daara ji ñoo xam ne daara jee leen tawsif ñu yor seeni njaboot di jàngale lislaam di jàngale diini loolu it di liggéey bu am solo bu rëy rëy loolu mbokk yi moom la mu assasatu al azhar lenn ci lim def am nag loo xam ne moom buñ ko jéemoon a tënk fii daanaka duñ fi jóg mooy liggéey bi azhar liggéey ci wàllu social ci boole ay nit boole ay famille ay njaboot yoo xam ne tey ñi ngi ànd ba former ay jaboot te ñoom ñëpp ñi nga xamante ci Azhar ñi ngi ànd ci Azhar bokk fi di liggéey loolu ay lim la yoo xam ne ci barab bu nekk ci réew mi nag muy am ci ay ñoo xam ne tey dañ lay wax ne ci réew mi gone ya fa nekk am solo ci dëkk ba yor jàkka ya yor daara ya lu fay xam-xam ñoo ko yore dongoy Azhar la ay nit ñu génne fii ci daara ji lañ kon liggéey bu am solo la liggéey boobu nag bi sëriñ ñooy moom la sof école yi ñu wax nii bari na ci yoo xam ne ci ginnaaw sëriñ Mourtala la sosu yokk ci liggéey bu rëy bi sëriñ Mourtala defoon waaye mu yokk ci nag ubbi ab université boo xam ne am na juróomi filière juróomi xaaj yoo xam ne benn bi mooy bii nekk ndaam ñu nekk Daaru Almil Xabiir nga xam ne cent vingt-neuf yoo xam ne am nañ licence ci wàllu xam-xami diine yi génnee gudd nañ ko muy ñi fi juróom génn daaw ren ji ñi ngi waaj ab limbut bu toll na mbaa bu ko ëpp war a génn ñi nga xam ne ñaa nga fële ci Bambey ci wàllu mbay ak wàllu sàmm ak yu demee noonu lu mat ñaar fukk ak juróom benn étudiant am nañ fa licence amit nag lu wàllu lu jëm ci wàllu alkahromécanique yi ak lu jëm ci wàllu informatique ak lu jëm ci wàllu session yooyu yëpp ay kulliyaat la yoo xam ne jamono yi ñu ngi ci waajal dong yi war a génne ñu am licence ñoom itam nga xam ne kon majaalaat yu bari yu wuute ci la daara ji di yëngu di génne ay borom xam-xam ñu xam diine lool waaye am yarub lislaam waaye am xam-xami àdduna yoo xam ne moo téye àdduna ci la tax àdduna jëm kanam mbokk yi lii du lu tuuti ci am réew moo xam ne ay nit ñoo xam ne dañoo coobarewu xam ne tool bi toolub lislaam ñuy liggéeyal yàlla ci daara ji ba tax ñu taxawal lii sëriñ Mourtala mi ko taxawal ak njabootam gi ko yor di ko saytu sëriñ Mamor jiite leen doon jàmbar joo xam ne du du tay du sonn loolu lu ñëpp war a xam la lu ñëpp war a yëg la yokk ci loolu am na ay fukk ak benn ñoo xam ne ay inspecteur lañ ñi ngi ci terrain bi di liggéeyal réew mi ci njaboot ci jàng ak jàngale ñoom ñëpp dong daara ji lañ génnee àggale seenu njàng nekk ay inspecteur tey di ñu ngi ci terrain bi di liggéey ñu bari ñoom ñu ngi fii ci salle bi man salle bi ñu wax tey kon liggéey bu rëy la liggéey bu barkeel la liggéey bu yaatu la yàlla na yàlla ñu fayal Cheikh Mour Moutala mi ko sosoon te déggee ko ci njàngale way juróom bu tedd wax mi sañtoon dëkk bi wax ne na des di daara na des di daara wa jaalu da ban maskana mi kon Cheikh Mour la bokk na ci ñi gën a jëmmal loolu waaye Serigne Mamour bi ñëwee dëgëral ko yaatal ko ba xam-xam bi gën a yaatu njëriñ li gën a bari li mu faral di wax génn ay borom xam yoo xam ne. dañuy boole li nit ñi wax fii ñu toll naan niti diine yi ak nit niti àdduna yi lislaam xamutoon lool mel na sëriñ bi nag loolu la bëgg a delloosiwaat ay julit yoo xam ne nañuy yilife jàkka ja noonu lañu mën a yilife usine bay liggéey wala këru liggéeykaay gu mën a doon te ñooñu la adduna soxla ñoo xam ne dañuy defar àdduna am xam-xamu àdduna waaye diine koy lal ak jikko ju rafet duñ yàqal kenn duñ jël alali jàmbur duñ def lu ñu war def jërul kenn doon contrôler ndax ñoom ñooy contrôler seen bopp liggéey boobu mooy liggéey bi daara ji liggéey mbokk yi lu ñëpp war a xam war ko bàyyi xel waaye ñëpp war ca jàpp ndax du liggéey bu tuuti kon ay mbooloo ñoo ci nekk tey li ci nekk ñoo ñu tudd ñëpp nga xam ne tey ñu fi nekk di fi jàngale la ay père de famille ay njaboot lañ yor yoo xam ne ñoo leen yor te daara ji moo leen jàppal ma leen yor kon liggéey bu rëy la boo xam ne lii ñuy wax nag lu tuuti la ci waaye jataay bee laaj ñu fàttali nit ñoo xam ne nañ xam ne fii ñu nekk ñaanuk sëriñ Tuubaa gu nangu la sëriñ Abdourahmane wax na ko léegi barab bii ba ko sëñ bi sanc tudde ko daarul alimil xabiir andi fi sëriñ Ndaam Abdourahmane loo liggéey boobu rek mu wéy mooy lu baax yàlla bu ko xasee ci barab du ko dindi jàmbaar nag mooy ñëw ñaan nga nangoo ci moom sëriñ Mourtala moo ñëwoon sof loola sëriñ Mamoon ñëw ànd ak njaboot sëriñ Mourtala gépp sëriñ Saliou ngi ni toog ñaan yàlla gën leen a sàmm gën leen a dëgal gën leen dooleel ba liggéey bi fi ñu bëgg mu àgg mu àgg fa bu fa àggee danañ noppalu ci yii ñu jàmbat ak jikko yu ñaaw yi ñuy wax ñu jaar ñu jaar fii danañ mucc ci loolu dee su jàmbat ñoom la ñu naqar yi bu dee ci àdduna it kilifa goo xam ne matul kilifa danañ ci mucc ndax ku jar ci diine daf ci jikko yu rafet jàngal la àdduna boo doonee kilifa da nga mat kilifa ñooñu nag la daara ja bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg amal di ñaan ñëpp jàpp ci xamee ko noonu it fooy nekk it xam ne loolu la te it réew mépp la nekk ba ci bitim réew am na ay dëkk yu bari Afrique yoo xam ne tey jiit Azhar ma nga fa am ay bànqaas lool daal mooy li bëggoona wax di ko jégglu mbokk yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon li waral institution yooyu di am toujours yitte ci teew ci jataay bu mel ni nii waaye rawatina ci jataayu al azhar mooy dimension bi al azhar am ci wàllu jàngale te dimension boobu léegi sama collègue sëriñ Sam Bousso indi na ci ay résultats yu am solo al azar buñ jëloon rek pas-pas ba ko sos day doy sëkk ni lu màgg la ndax mbir dina màgge ci ka ko taxawal buñ ne kan moo ko taxawal ñu ne Cheikh Mouhamadul Mourtada pas-pas boobu doy na bu doon dafa samp bant sax nit ñi dinañ fonk samp boobu waaye mu koy doxal muy dox di defar laneen lu mu doon defar mën na baax waaye muy defar ay nit yoo xam ni néewaana nga dëkk ci réew mi te dajewoo jëmm bu dee jullit nga di dem ci bërëb yi diine yi nga fekk ñu ko jiite xool leen ñu ni ñii ci ku jóge ci al azhar la mën naa mën naa doon juma mën naa doon jàkk mën na conférence waaye nga xam ni produit al azhar la waaye mu am ci taxawaay ci diine am ci taxawaay ci jikko ju rafet loo xam ni yow sa bopp da lay yéem te di nga ci jariñu kon loolu muy résultat bu palpable parce que nag nit amul chantier bu ëpp chantier defar nit déedéet laneen loo mën a taxawal mën naa xëy màbb waaye boo taxawalee kenn nit ku mat sëkk bàyyi woon yeneen yépp kooka ci pas-pasam ak defar ga nga ko defar mën naa jëmmal loo xamante ni mbooloo mu bari muñ jaaraluñ foofa doon nañ ca lot te lool mën nañ ci joxe ay exemple yu bari tey buñ nee Touba toll na ni mu toll benn jëmm a tax benn jëmm buñ melal melokaan wu jéggi dayo moo def résultat bu toll nii kon defar nit amul chantier bu ko ëpp te Al Azhar ci liggéey boobu la nekk mu koy doxal ba daanaka àggoon ci moyen secondaire école lañ doon wax waaye yàlla dogal ci mbaaxam bi mu wuyjee boromam yàlla na ko suñu borom dolli ay leer ñi ko wuutu tamit téye loolu sàmm ko waaye jëme ko kanam il est rare nit samp lu tol lu ñu naan institut la jëm ci éducation amagul un siècle demi siècle la am mu dem ba am enseignement supérieur boo xamante ne état daf ko reconnaître xam qualité bi ba fay orienter ay étudiants loolu c'est performance extraordinaire daaw ñun ñëpp yëg nañ bi ñuy def remise de diplôme première génération bi fi amee ay licence cosaan li nit ñi buñ nee al azhar rek dañ naan jàngi diine te xam nga Sénégal ñu bari dañoo tënk diine ci ibaadaat yi rek mais boo ñëwee institut al azhar da ngay gis ni dinañ ko jàngal ba mat imam mën na taxawee diine ji mais ñu ubbi ay filière ci wàllu métier muy lu global nga xamante ni. day liggéey ci la développement intégral de l'humain te loolu am solo la ci programme defar nit parce que boo jëlee benn aspect rek liggéey ci nit ki ngay defar day sooxe te léeg-léeg mën nga koo jàngal diine ba man ko yar ko ci boo négligé yeneen fànn ya sooxe ya am foofa mën naa tax sax na war a taxawoo diine ja mu des ci moom moo tax programme la bu mucc ayib boo xamante ni képp koo xamante ne spécialiste éducation nga rek boo ko xoolee yow da lay séduire sax loolu nag dañuy xam ni barke moo ci dugg ak ndimbalum suñu borom subhanahu wa taala te ndimbalam moom dadul dul yam fenn boo xoolee tey 75 pour cent de résultat au bac réew mi sori na ko dañuy wax naan aspiration lay doon taux yi muy am day tiim lool. taux yi ñuy am ci examen au niveau national loolu ñi jàng éducation dañuy wax ni kon institut bu efficace am efficacité interne la efficacité interne mooy ci examen yi nga ci am résultat yu baax waaye boo jëlee li ñu wax efficacité externe aussi mooy kooku am résultat bu baax bi fu muy mujj bum mu génnee ñu gis ni wax naa ci exemple léegi bu dee ku ñuy soxla ci wàllu diine boo demee fekk yàlla dimbali ko ci bu dee ku ñuy soxla ci wàllu jëflante boo dajeeg moom ci société bi mu nekk citoyen bu ko mat waaye tamit mu nekk un acteur économique boo xamante ni mu ngi ciy mu ngi contribuer ci développement réew mi kon efficacité externe boobu tamit ñun ñëpp gis nañ ko ci. beneen dimension bi ma ci gis tamit mooy day joxe leçon leçon bi ñuy joxe mooy ndekete kon il est possible que ay nit nekk ci réew. samp dara am yitte di ko suuxat ba dem ba doon njariñ international te sax du doon loo xamante ni dañ koy sukkandiku ci état parce que am na benn euh, homme politique bu mag bu doon wax ni tant que dañuy xaar ndigalu état pour réparer benn pont bu yàqu mérité guñ démocratie mérité guñ liberté citoyen dëgg mooy koo xam ni bu rombee ci mbedd mi luy war a defar xaarul état danaan sama yëf la taxaw ca éducation ñun ñépp xam nañ ni état la war mais citoyen bu jël investir ñàkkam investir dooleem ba samp loo xamante ni ay junni junni doomi réew mi ñoo ci defaroo bay defare mais kooku xaarul état mais nag état aussi koo xamante ni yaa ko waroon yanu yóbbu ko buy demal boppam war nga ko gunge moo tax l'état du Sénégal doit davantage xam naa ne mu ngi koy def mais war na gën a dugal loxoom ci doxu institut yu mel nii loolu c'est un euh, message que je lance ici mu ngi def xam nañ ci dara mais nag doyul war na mën a gën a dugal loxoom te nag xam naa ne yoonu murit ni mu bindoo ak cosaanam tax na il est rare muy woo état avec insistance parce que moom léeg-léeg bu état ñëw sax da koy bëggam ni ko toogal ma defal sama bopp mais nag comme ci réew mi lañu nekk am ci àq kuy def lu toll nii état def ci war a dugal loxoom dugal gu mat sëkk kon ñu ngi santaat bu baax sëñ Mamor Mourtada ginnaaw buñ ko nuyoo di ko ñaanal suñu borom fekk fanam wéral ko ba naal yim am mu àggale ko ci gën gee rafet anam ndax njariñu ñépp la di sant di ñaanal ki ñu tuddee bis bi ki ko fi teewal muy sëñ Abdourahmane ki ko tudde tamit référence la ci jàng ak jàngale xam-xam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñun ñëpp gis nañ ni bi ñuy xale foo dem ci institut buy jàngale diine bu dul institut islamique bu Dakar looy gis école sëñ Cheikh école sëñ Murtada ñaar yooyu nga doon gis ci dëkk bi yépp kon defe naa kiñ ko tudde aussi mat na ko sëkk ñun suñuy argument pour def plaidoyer pour nit ñi jàngi souvent ci ay waxam lañ koy jëlee waxi sëriñ Cheikh yi ci gën a siiw mu ne xam-xam xaw ma bokk ci di lu am solo loo xam ne ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel kon ñu ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp wax yi waroon na gën a rafet xëy na bu kilifa yi yable teewoon ci lay gën a jot ñi fi nekk rek mënoon nañ ko ndax seex Makhtar Lo inspecteur la sëñ Sam bu so ngi fi sëñ Cheikh Naa Fall mu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen lool day wane performance Al Azhar te ñoom ñëpp ay produits Al Azhar lañ inspectorat surtout ci wàllu arab saa su résultat yi génnee damay li may jëkk xool mooy fan lañu dëkk lu ci ëpp plus de 80 pour cent da ngay gis ni ci liste ñu réussir Touba la jege te lool da ngay xam ne liggéeyu al azar la te inspectorat nag du concours bu yomb inspectorat da ngay jaar fu bari ci niveau de sélection yu bari ci doog yegg da ngay jàng ba mën a jàng jàngale bañ seedal leen mën ngaa jàngale ñu boole leen yéen ñi mën a jàngale ñooy ni kaay ñu tànnaat ci ñi ci gën a xereñ kon kooku fa jàll wax dëgg yàlla fañ la jaarale mucc na yëpp ñu ngi santaan ñëpp di gërëm naat ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa koo ndax daa àgg ci état bu di fësal boppam nag ne kon ku ko fësalut daa àgg nag fi ne ci di fësal boppam ak di wane boppam kon nag ngir jéem euh, joxe suñ participation maanaam teg suñ loxo ci bërigo bii nga xam ne daa nekk ci kaw mbartal yu mel noonu rek moo waral ñuy fas jataay yi kon ngeen xam ne mbokk yi bisub tey bis la boo xam ne bu rëy ci mu assasa bi la bu rëy ci azhar la bu rëy ci sëriñ bi la mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ko dénkoon ñu di ko saytoot lu mel nii rek moo taxoon ñu taxawal bëgg daal képp ku fi jóge danga amaat gis-gis bu gën a sori wala bu gën a xóot ba nga gisoon ci mu assasa bi lum gàtt-gàtt tamit danga amaat ay information yu bees yoo xam ne da koy jële ci mu assasa bi foog naa am na benn bi ci kanam boo xam ne te kalimatun anil azhar la sunu sëriñ al imam sëñ Mbàkke Abdourahman moo ko war a jottuli foog naa dana ñëw bu baax a baax ci liy dolli nit ñi ay information ci lu aju ci liggéeyu Azhar ak taxawaayam ci biir réew mi ak ci bitim réew kon daal ci turu al lajna al munazima loolu moo doonoon solos jataay bi ñuy sant mbokk yi fi teew yépp nag te di leen gërëm ndax ku ne xam na période bi nawet la dëkk bi dafa naqaree génne rawatina nga jóge ci yeneen dëkk bëgg fee jëm si waaye ku ne xam na ne jegeeb événement màggalu Tuuba xat-xat yi muy àndal yaakaar naa rek bis ni ki tey ñàkkut ay xew-xew yu bari yu demee nii yu xew ci dëkk bi ak li ko wër foog naa loolu sax war naa mën a feeñ ci jataay bi ci xuduur bi ak yu demee noonu waaye ànd loolu lépp bàyyi ngeen yooyu yépp fexe ba xajal ci seen temps ñëw teew ci suñu jataay bi kon mbokk yi ci turu al lajnal munazima ñi ngi dalal ñépp di leen tatagal te di leen sant di leen gërëm tey ñaan ku fi jóge rek li taxoon nga fi ñëw booy dem nga yóbbaale ko te nga àggaat ci jàmm ci sa njaboot te fekk fa jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yëkkati. kàddu yi nga xam ne dañ ciy tënk euh, discours sëriñ Saalihu al am te di kàddu yooyu mu jiital ci nuyu sargal sunu kilifa ñun ñépp mooy Cheikh Mamour Mbacké rais muassasatul azhar al islamiyya ko ñaanal suñu borom subhanahu wa gën a dëgëral taxawaayam àggale ay yéeneem ci jullit ñi ci réew ak ci mboolem humanité kon muy am mbégte ci jotaay bii nga xam ne dañ ciy teral suñu njaboot yi nga xam ne dañoo ràññiku ci examen yi ak concours yi nga xam ne moom la état Sénégal di organisé mu doon concours yu seere yu xam waaye suñu borom defal leen ci ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ caa ràññiku lool muy fàttali rek ne ren taux de réussite bi nga xam ne am nañ ko àgg na ci 75 pour cent loolu xam ngeen ne lu am solo la duñ ko comparé loolu boo ko comparé daaw ñu amoon 62 virgule 4 pour cent kon am na yokkute 12 virgule 6 pour cent te xam ngeen ne réewum senegal at yëpp ñu ngi yootu 50 pour cent mu jafe lool kon bu ñu amee ci Al Azhar 75 pour cent ci ñi mu dugaloon ci examen yi loolu dañuy wax ne ndam lu rëy rëy la loo xam ne njàmbaarteeg ñi ciy liggéey feeñ na ci waaye dañuy wax ne barke bi nga xam ne moo nekk ci Azhar feeñ na ci kon muy fàttali rek ne Azhar kon li ko taxoon a jóg mooy tasaare xam-xam ci jullit nii waaye yar leen ci lislaam waaye def ci ñoom bëgg lu baax def ci ñoom ñu mën a sukkandiku ci seen bopp te suñu boroom ci ak jàppaleem Azhar ci diggante bu gàtt tasaaroo na ci réew mi yépp ci dëkk yu mag yi ak dëkk yu ndaw yi li nga xam ne mooy politique alphabétisation ci réew mi nga xam ne réew dañoo am jafe-jafe ci nit ñi jàng nit ñi mën a liir Azhar am na ci taxawaay bu ama am solo ci yaatal am njàng ci réew mi rawatina barab yi nga xam ne xam nañ ne njàngum diine lañ gën a jublu foofa boo fa demee da ngay gis ne am na dëkk yoo xam ne daanaka doo fa fekk benn jàngukaay bu may jàngukaayu Azhar kon Azhar am na taxawaay bu am solo ca lim nañ léegi résultats yi nga xam ne sëñ Mbàkke ñu ngi ko doon tudd ci li nga xam ne génn na ci Azhar ci ay cadre yoo xam ne fenn fu nekk ci réew ma ña nga fa di taxaw seen taxawaay bu mat sëkk moo xam ci wàllu xam-xam la ci wàllu jàngale ak ak ak ak wàllu ak liggéey boo gisee doomi azhar nee na ci mboolem e- e- examen yi nga xam ne ñi ngi koy def wala ay concours ngir tànn ay jàngalekat wala tànn ay inspecteur de l'éducation dañuy gis ne doomi azhar dañ caa ràññi ko bu baax a baax te loolu ku xool saal bi ak ñi fi teew ci ay inspecteurs yoo xam ne doomi azhar lañ loolu dana ko dëggal azhar muy fàttali ne lu tolloog juróom fukki at biñ ko soseeg léegi ci barab bu sell bii mujj na doon établissement bi gën a mag ci wàllu éducation surtout établissement privé ci Sénégal loolu képp koo xam ne yaa ngi gëstu yaa ngi topp ngirum jàng jàngale man nga dëggal loolu ndax amul benn dëkk wala néew na ab dëkk boo xam ne boo fa demee doo fa fekk institut Al mu génne ay boroomi xam-xam yoo xam ne fenn fu nekk lañ bàyyi ko xeet wu nekk ngi ci biir Azhar mbooleem intimaat yi ci réew mi boo ñëwee danga leen fekk ci Azhar muy fàttali ne Azhar dajale alal taxu ko woon a jóg waaye dimbale doomi jullit ñi moo ko taxoon a jóg sëriñ bi bëggutoon ñuy fay bi muy tàmbali waaye am ay ñoo xam ne dañoo seen xam-xam dafa jëm ci wàll gi ñu ne ko ah établissement bu toll nii de bu bëggee mu sax faw mu am lu ñuy lu ñuy joxe ngir mu mën a wëy waaye nee na sëriñ bi taxawaay bi mu fi amoon te loolu mooy taxawaayu Cheikh Mamour Mbacké mi ayyadahu llahu taala li am mooy ñàkk a mën a fay du tee jàng ñàkk a mën a fay du dox diggante kenn ak mu am xam-xam ba mu war a am moo tax rusum diraase yi mooy li ñuy fay ci Azhar lu symbolique la buñ ko comparé ak yeneen établissement yi fi nekk yépp kenn ku nekk xam na ne li ñuy fay ci Azhar ak résultat yu muy def danga xam ne la ñuy joxe symbolique la waaye nekkul loo xam ne ak fay la boo xam ne dañ ciy wuti alal ndax e, e, résultat yu muy def établissement boo ko doon def la ngay teg ñay jàng dana kawe lool te gis nañ ba ba léegi Azhar fi li muy fay li muy fayeeku ku ne xam ne loolu symbolique la kon Azhar li muy réaliser lépp ci taxawaayu boppam la ay doomam la ak taxawaayu kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp bi kon amul lu lu am solo luy jóge feneen ci ñi nga xam ne ñooy defkati lu baax yi ñi nga xam ne gis nañ ne ñi ngi def lu baree bari ci wàll yu baree bari waaye xëy na nag ni war a xàmme Azhar ak taxawaay bi mu taxaw ci liggéeyal lislaam loolu dafa des ñu war cee liggéey ngir ñu xam ne Azhar def ci mooy liggéeyal defar lislaam mooy dimbale nit ñi mooy xettali njabootu réew mi kon moo tax mu ngi woote ci kàddoom bu mujj di woo mboolem kuy autorité moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu état la ak koo xam ne am nga man-man nga jàmm nga jàppale waxul Azhar rek waaye nga jàppale mboolem établissement yi yëngu ci jàng ak jàngale ci dëkk bi ñi nga xam ne li ñuy def lu ama am solo la ci waajal njaboot bi ci defar seen ëllëg ci développé réew mi nga jàppale nga jàpp ñu jàppale leen rawatina nag Azhar bi nga xam ne ku ne xam na ne ñëpp a ko bokk seen Azhar la Azhar ak jullit ñépp la te li def def ci Azhar mooy dëgg-dëgg def lu baax mooy fexe ba xett li nit ñi génn leen ci ak réer kon yëkkati kàddu nga ci turu Sëriñ Abdourahman kàddu cant rekk la sëriñ bi mu ngi lay sant bu baax a baax a baax dangaa tuddee sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bis bii waaye sag fonk sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak teral goo ko yàgg teral jiitu na tey ndax ginnaaw bu Cheikh Mouhamadul Mourtada wàccee ab liggéey ba dénk la liggéey bi bokk na ci li nga jëkk a def moo di boole écoles yi def leen ay centre centre yi bokk na ci ba ci ëpp solo centre bu nekk ngaay boobee ca 1900 2007 nga ko taxawal ña fa jëkk a génn centre ba bëgg ko taxawalee Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma nga ko tudde te bokk na ci centre bi yi gën a mag ci Azhar boo yeman foofu rek mu doy sëkk ndax centre boobee li fekk aw nit ñaa nga fay jànge rek mel na ni la nga ci bëgg dana ci am mooy turu sëñ Cheikh Mbacke di di gën a jolli waxtu wu nekk loolu rek doy na sëkk waaye yéemoo ca lool sëriñ Abdul Fatah moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñi jëkk a génn fii ci Al Azhar ci mois de mars defe naa le vingt vingt six mars bañ di leen jox seeni diplôme muy ñi fi jëkk a génn ñooñu sëriñ Abdul Fatah moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doo ko tuddee. boo yemoon foofu rek mu doy yemut ci loolu bis bii nga xam ne da nga ciy teral ñi nga xam ne ñoo am tafawuq ci njàng bi nga tuddewaat ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yàlla na la yàlla fay yàlla na la fay yàlla fay xamal ne njaboot yi yëg bu baax a baax a na ci lool lool lool lool jàpp ko bu baax a baax a baax ñu ngi lay sant di la ñaanal di ñaan sur borom yokk sa tawfiix am nga tawfiix de ndax fi sëriñ Mouhamadou Mourtada bàyyi woon école bi ba nëgë ak koo ko toog nëgë da nga xam ne taw fii am na ci waaye yàlla na ko yàlla yokk yàlla yàlla yokk ndam yi ngi sant bu baax a baax di gërëm ci xam naa nag di occasionné tuuti aslëf ci euh, sant gone yi rek di xamal ne wax dëgg yàlla yéen ñi doon jàng fii nag sëriñ bi yaakaar naa ne wàccoo na ak yéen wàccoo ak yéen ndax gone boo ko jëlee mu toll ci tufuu la nag ni si nga jox ko licence am yaakaar naa koo def wax dëgg yàlla wàccoon ak yow rawatina nag ba bis bii nga xam ne taxaruj bi tànn na Serigne Cheikh Mbacke tuddee la ko loola it kon am na lu mu leen yéene am na lu mu def ci yéen yàlla na yàlla mottali yéene ya te nangu jëf ya ci barke waxee Serigne Touba ji ma waxoon rabbi stajib waltu kammil maana waytu la daa Touba te lii rek la bokkul ci Touba allati bika tubna fiika bunyaana te bu nu yaa ne du ay tabax rek waaye tabax nit ak tabax yooyu lépp sëriñ bi dafa na ko yàlla na ko yàlla fay sëriñ bi noo ngi lay sant baax a baax sëriñ Abdourahmane nee na mi ngi lay sant bu baax a baax ci turu sëriñ Cheikh mën naa weesu foofu sax tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax lii itam fedd li rek la ndax diggante ku ko tudd ku tudd barab bi xam diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Mourtada sëriñ Cheikh ak yéen kon loolu fedd li kole rek ngi ci boole mu assisaat yi tamit mi ngi ci Euh, am na ko sàkku ci man moo wax tuuti ci astir aslaf ci institut islamique sëñ Cheikh Mbacke waaye daanaka jëratu ko ndax lii ko waxe école boo xam ne sëñ Cheikh Mbacke moo ko taxawal 1960 ànd kook sëriñ Mourtala sëriñ Mourtala taxawal lii lépp la wax ci lii rek mën ko wax ci lee yàlla dogal na ñaari institut yi tam ñu ngi juboo ba nga xam ne boole nañ seen lépp juróom ñaari taw am loolu ñi nekk ci école yi xam nañ ko baax a baax ndax xam ñu xam ne loolu mooy leen war kon boo xasee ba wax ci école bi sëñ Murtada rek wax nga ci sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ndax taxawaay yenn la lenn la lenn yàlla na defal tawfiq ba sëñ bi fi nga bëgg a àggale yëf yi nga fa bu baax a baax te ñu yàgg koo ànd yow sëriñ Cheikh Mbacke itam ni nga ko waxee ginnaaw taxawaayam mam taxaw nag ci yëf yi ci ci e, e, école yi ak njabootam taxaw na ci bu baax a baax tam la ko sëriñ Mbacke soxna loo radiyallahu anhu ba ci sëñ Abdou Fatah sa xarit waaye ba sëñ Abdourahmane mi ñëwee itam bala ma jàll bu ñu sëñ Abdourahmane tudd gi ma tudd sëñ Abdourahmane xëy nañ bari nañuy dégg aw turam waaye nañ xam ne sëñ Abdourahmane loo mii lañ ko tuddee mooy lu cher ci moom lool mu doon loo xam ne da caa bëgg lool lool di ko damoo di ko di bëgg ca lool sëñ daam Abdourahmane lañ ko tuddee kon yëf yi du hasard kon sëriñ Abdourahmane bi bi mu dikkee itam bëgg yi école bi fa mu toll woon ak njàngam sëñ Cheikh mu bëgg koo fos ko yéenee jëme kanam nja waxtaan ak njabootub sëriñ Cheikh Gaynde Fatma toogarub sëriñ Cheikh ba nga xam ne moo nekk bi ñëpp xam ñu def ko wax mu tàmbali fa ab mashron bu rëy boo xam ne nii ba mu ko waxee sëriñ Mouhamadul Mourtada def na ci jëf ju rëy joxe na ci 100 millions tàmbale ko mashron ba doon mashron boo xam ne ay 400 millions lay war a kii incha allah te fas nañ yéen incha allah octobre bi dis na ko ubbi incha allah loolaa na ca contrat xaaj école loolee bañ koy bañ koy bañ koy taxawal woote ko sëriñ sëriñ sëriñ bi teew nga fa teewaay bu rafet jëf ci jëf ju rafet yàlla naa la yàlla fay noo ngi ñaan suñu borom defal la tawfiq maa ngi jégalu bu baax a baax ci sëriñ bi xam ne moo lu ëpp loolu waaye sant bu baax a baax noo ngi jégalu te ñaan suñu borom yokk tawfiq ci yokk ndam yi rek ci barkeb sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi jégalu sëñ bi dañ koo bëggul woon ñu ngi lay ndokkeel sëñ bi di nuyu di sant bu baax kàddu bu rafet bi ci sëñ Moustapha wax ci sa tur waxoon nañ la sax xëy na xër la rek waaye boo mënoon nga bañ a ñëw ndax ngànt la ci yow xam nañ sa farlu ak sa yitte ak sa bëgg lu baax ak sa woyof waaye nag ngànt nag am na ci lu ne te am nga ko kon ñu ngi lay ndokkeel di sant bu baax di ndokkeel sëñ Moustapha ci kàddu gi mu ko wax rafet na lool tege na lépp it nag fi mu war a eh, kon ginnaaw bu ñu leen nuyoo nuyoo doyen euh, alamin nuyu as euh, al mudiru am lil asar sëñ Saliou Mbacke nuyu tamit mboolem ñi nga xam ne ñooy nekk ci njàng mi muy jàngalekat nuyu inspecteur nga baal ma ya fi teewal ministre l'éducation nationale di nuyu tamit xale yi di nuyu mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi ci bës bi ci lii nga xam ne li muy firi rek mooy euh, dafa wane lu bare wane na bu bari xëy na li ci gën a am solo sax xëy na mooy seen barab établissement bi ngeen nekk di jàng lii dafa ko wane ndax sëñ Moustapha junj na ko ci ñi nga xam ne ñoo fi njëkk a tàmbali jàng bi ba nga xam ne joobu jamono yombul sax ci jàng mi waaye wax ja moo metti woon ndax boobu baatu baatu arab dañuy jàng arab rek la woon te itam ña ko doon wax wax nañ dëgg waaye ñun dañoo jàngul arab parce que arab culture la ak civilisation ñun xam-xam lañ doon jàng ak diine loolu nag yeex nañ koo xam lool ci bi sëriñ Cheikh ubbee jàngukaay bi ak sëñ Moutala yu bari école lañ doon wax école mooy mooy jàngukaay rek moom daara dem la kon jafe woon na jafe boo xam ne jafe maanawi la du jafe boo xam ne jafe kawra rek la waaye ci biir la woon ndax lu ne la ci amoon kon jamono boobu loolu te ñu di ko firee ñun ne loolu moo firi sëñ Touba waaw ndax sëñ ay étape la te waxtu bu ne war naa am ku génne dara wala feeñal dara loo xam ne moom moo ko dencoon kon xale yi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ndax lii dana wane lu bare ñu ngi leen di ñaanal rek yàlla dimbali leen ba ngeen continuer ci loolu léegi nag lii ngeen doon def ay concours la wala ay examen ngeen am ci ndab ci diplôme euh, waaye loolu bu leen jàpp ne boroomi xam-xam ngeen bu leen teel a dugg foofu diplôme te firiwul nekk intellectuel da koy junj buntu la ci bu leen teel a bokk mukk ci ñuy limaale seen bokk ci boroom xam-xam borom xam-xam la nit du ko wax na ngeen jàpp ne waxtu wu ne yéen ngi soog tàmbali yéen a ngi ci yoon bi bu leen xeeb gone bu tuuti ñu nekk ca alpha ca ca première wala euh, bu leen ko bu leen ko xeeb ci la ngeen di jële ci moom euh, ni ngeen gën a topp seen gëstu bi xawtal ndax diplôme bu fekkee moom rek nga jàngale nga jàngal loolu bari na lu mu tardeel sax ci ñun moo xam ci njàng arab la boo xam ci jàng français la compétence nit moo koy lijjantil boppam bu ñu la joxee cours boo ko xoolee ba noppi génn ci yow sa yëf dama daan wax xale yi di leen wax ne ñun ba ñuy ba ñuy jàng euh, question sax pour tontu ko dañ waan dañ daan wax al ajwiba murattabatun tartibal asila soal waaxid soal deux waaye du ñu répété sax baat bi question bi pour bëgg rekk bañ a rab rab bañ ragal rek répété ak lu ne nga jël ko fa nga ko waroon jël moo tax yéen am ngeen sansu ñi leen ubbil bunt muy sëñ Modou Moustapha Mbacké ak sëñ Moutala Mbacké sëñ Cheikh Mbacké la sëñ Moustapha buñ bu ñu déformewul taarix constitution mouride bi def naa ne sëñ Modou Moustapha moo ko élaboré sëñ Moutala ñëw di ñu ne mooy bu ndaw mu ñu jaar nekk ca pegg ba ñu karye loo xam ne moom laa doon firé ne li ñu doon wax naa bi Moustapha Li banaa tuddoo su mën sëñ sëñ Touba passé na madrasa nekk ña ñeenti miir xanaa bu toogee ba léegi ah du ma dugg sax ko parce que dañuy déggiin yi la li ma bëgg a wax mooy ba ñu ubbee buntu boobu loolu moo indi résultat yi kenn mësul xalaat ne euh, licence te ni nga ko tudde léegi Moustapha licence bi ci biir licence bi état bi reconnaître la ko mais def ci def ci nangu loo xam ne état mosu ko nangu dañu naan licence science religieuse option agriculture option ingénieura loolu dañuy bind ci diplôme bi te état da koy signé loolu li muy firi mooy li ñu doon xalaat ni sëñ bi mbiram léppam dafay war a continuer te lu ne la prévoir ci bindam kon yéen bu leen tàyyeel wante bu leen naw seen bopp waxtu wu ne rek jàpp leen ni yéen a ngi soog a door ndax bu fekkente ne diplôme rek nga ngay xaar wala moom ngay jëlal kooku du bari man nga am licence man nga am sa doctorat amul problème boobu mais bu fekkee la nga jàng képp lañ la ci yemale nga xam ne amuloo produire sa bopp kooku du jàng kooku dañ laa sax nga war la yoon ne la demal boo taxawee nag bu boobaa mënuloo dem taxaw bi nag mooy nga yem ca loola dem gi nag mooy nga xalaatal sa bopp génn ci loo xam ne mooy sa compétence kon yéen am ngeen chance lépp kon na ngeen di gëstu xóotal seenum jàng xootal seen gëstu bu leen ci xeet kenn bu leen naw seen boppit nag saa bu ñu leen ne xam ngeen daw leen ka leen koy wax daw leen kooku da leen di bëgg a yàqal ndax loolu mooy tax nga am sa sa liberté ci sa xalaat lii liberté ci sa xam-xam liberté ci sa li ngay génne ci sa bopp loolu kese moo mën a développé moo mën a tax nit mën a am lu muy lu muy dem wante nit ki li ko li muy jël ci boppam mooy li ñu koy jox kooku bokk kooku mënul ko mënul kooku luñ ko jox la kon buñ même diplôme dañ la koy jox wala leneen dañ la koy jox wala xam-xam jàngale mi sax dañu la koy jox kon li lekk lay jàngal di jox la nga cee mën a jëlee mooy la nga dindil sa bopp na ko ci ba defaat leneen koo xam ne boo jàngal nit mën nga ko caa mën ko caa loolu mooy xam-xam mooy jàng kon yéen bu leen tayyeel continuer leen bu leen naw seen bopp bu leen doy de seen bopp bu leen yëkkati seen bopp bu leen xeeb dara it ci xam-xam su ngeen ko defee da ngeen am da ngeen da ngeen delloo si seen bopp boo gisee may wax ne bi sëñ sëñ Cheikh Mbacke ak sëñ Moussa lu nekk bari fekk nañu ci parce ñu bari dañ doon moo dem ci dëkk àll yi sax def naa sëñ Abdou Faye ñoom ñi dëkk àll yi sax ñun bu ñu daan dem bu ñu leen di wax dañ leen wax ndigalul sëriñ bi parce que boo nee nit ki damaa bëgg école arabe day bañ te wax nañ doo xam sax la xoon mais léegi ngay soog xam ne li koy wax dañu dëgg parce que arab culture la ak civilisation te ñu diine lañ soxla woon kon loolu moom moo indi lii nag moo indi ba tey lii gën cee génn parce que ñu daan jàngale araab yëpp parce que di langue ba boo gisee sax ñu yaatal bu dee ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu yaatal langue yi jubluwuñ ci pour la waaye dafa mën a dimbale nit ki dafay jokkale parce que culture boo jàng boo jàngee ci làkkam moo xam ci arab kese la wala ci français kese la wala ci espagnol langue boo jàng bu fekkee ca nga jàng boo deful attention culture am dana la yóbbaale loolu moo tax ñu bëgg ko yaatal ba nit ki di jàng làkk pour wax lam soxla mais nag ak boppam loolu moo tax ngeen gën a góorgóorlu sëñ bi kon bis bii tamit tudde ko sëñ Cheikh Mbacke ak yeneen yi du du du du hasard ndax yëpp yëpp li ma koy wax rek la du wax pour wax lu neex wala wax loo xam déedéet ñun duñ def loolu parce que wees lañ ko wante boo toppee taarix am na loo xam ne sax doo fa sañ àgg kon loolu rek la kon sëñ bi ñu ngi lay tudd ñu ngi lay gërëm fii itam am nga fi place parce que sëñ Ndao Abdourahmane la école boobu ngay wax sëñ Moustapha bëgguma sax di wax ndax léeg-léeg wax mën na sori wante man école bi sëñ Moutalla man la ko doon tabaxloo li ci gën a yéeme daf ma ko doon tabaxloo boobu mi ngi dund mu ngi fii may def saa bu ma ko defaloo masu entrepreneur bi ko yore mu yàqu. mujj na su ma déggee ñu ne sëñ bi day jaar yoonu ndar du ma am jàmm ndax damay rag daf ma ko doon laaj waaw foo tollu ci liggéey bi te lu ma liggéey mu yàqu yàlla def nekk eggul ba mu dem mu metti ci man lool ma profité àggale ko wallahi asim keroog kees laa fanaan bi mu àggee ma xëy di ko inauguré ji wallahi ci bu gi laa ko gis mu dema laaj caabi moo tax ak yu bari yoo xam ne jërul nekk li moo tax ñu tudd ko tudd ko sëñ Cheikh Mbacke parce que sëñ Cheikh Mbacke usra usra la loolu moo tax dañ fi am lu ci bari luñ ci lu ci laxasoo kon ñëpp sëñ Touba sëñ Touba mais day am loo xam ne tuuti léeg-léeg fokk mu mu génn tuuti kon sëñ sa teew ak sa ak sa ak njaboot gi loolu boo ñëwul woon sax doy na sëkk parce que ñun ni ñuy doxe du doxinu bëgg lu neex bëgg lu naqari déedéet du ñu doxee noonu dañuy doxe loo xam ne dañuy jàpp ne rek lii am na fu mu tegee foo xam ne buñ mënta wax lépp wax ca dara loo xam ne ku ko déggee doo ñu ca du am jafe-jafe kon li ci des nag mooy ñu ngi sant jàngalekat yi ak producteurs yi inspecteur ñi lay sant bu baax nga sant ministre de l'éducation nationale sant yëpp parce que yéen tam ñi ngi taxaw yéen ñu ngi jàppale bu baax wax nga ko inspecteur yu bari sëñ sàmm ñu ci bari ci lañ génne mais ba tey bàyyiwuñ ko bàyyiwuñ ko te jamono jaxasoo na lépp lu fi am dañ ci ñëw di ci teew bokk ci wane ne ci biir lañ jóge te loolu it am na solo lool ci mbir kon jàngalekat yi ñu ngi leen di sant bu baax parce que yéen a am résultat bi ndax balaa kenn am résultat bi euh, euh, compo dañ ko dañ dañ ko examen def dañ dañ ko ko laaj kon loolu yéen itam ñu ngi leen di gërëm bu baax neexul nag neexul parce que fii amul xaalis waaye def naa jàngalekat dëgg dëgg dëgg bu fekkee jàngalekat la def naa lim gën a mu gën a lim li gën a nekk ci ginnaaw mooy xaalis xaalis moom amul ñi ci problème boobu parce que du du taxuleen a jóg ndax ay missionnaire la nit ki nag bu fekkee dafa am lu muy war a liggéey fekk amul résultat ba résultat bii moo leen gën a ay million waaw wóor na moo leen gën a tey ngeen ay ay kon loolu mission la boo xam ne doxal ngeen ko kon yéen yàlla na leen yàlla sàmm li ci deseet mooy université bi rek adam doyen mi ngi fi xëy na loolu waxam la waaye liñ ci jublu mooy lépp continuer mbir benn rek la mi ngi jógee ci sëñ Touba sëñ Touba nag du bokkaale mais yàlla dafa am lu ne dafa mu koy jaarale am na relation lijjante na ba am ak moom moo yàlla yombul yàlla moom ku la ci dugal di la ko bëgg a yombal da lay tànn problème kon ke lijjante ba am diggante ma moom mën na lijjante ba ka gën a soofe xamu ca dara mu lijjante ba jàppanteeg moom ne kooku effort bu rëy kooku leneen la loolu rek la moo tax université bi tamit loolu rek la mbirum yàlla la xëy na fi ñu ci toll sori na am na lu bari loo xam ne lu bari yomb na léegi lu bari mi ngi ci te ñun xam nañ ne suuf yàlla ya mbirum mbirum yàlla si kon nag yéen góor ngeen góorgóorlu bu leen bàyyi continuer leen ñu ngi nekk ñëpp ay ay ay ay ay lauréat ñoo xam ak lu mu mën di doon continuer leen jàng bu leen doyal ci jàng bu leen yëkkati seen bopp bu leen am ne am ngeen diplôme am ngeen ay yooyu yëpp am jafe-jafe nañ leen koy waxal waaye yéen bu leen ko waxal seen bopp bu ngeen ko defee rek da ngeen egg fu kawe te yaakaar naa ne léegi li ngeen doon tiit lépp ci jàng mi amatul léegi lépp lu ngeen bëgg ci ay taxasusaat ban ngeen ko def boole ko nag téye seen diine bañ nañ ko ba sax ba lool lu ñuy bind ci suñu bi diplôme bi ku ci ku ko yor rek xam nañ ne xam nga diine te loolu def naa bariwul sax ci àdduna bi kon nag euh, ñu ngi sant sëñ bi nga baag ñu maa wax nga toog rek ndax tamit toogaay bi man maa wax sa sëñ Saliou maa ne ko buñ ko mënee fexe ba gàtt ba sëñ Abdourahmane ñu libéré ko moom bu ko defee yéen ñun ñu continuer ak yéen liggéey bi kon loolu moo tax ñu wax ko mu dir pour mu mu mu joxe ndigal ci ñu ñu bàyyi sëñ bi kon ñu ngi lay gërëm bu baax di di gërëm ñépp nag di sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu eh, ngi leen di ziar bu maa ngi tudd Moustapha Xumma eh, di jàngee eh, école Serigne Moustapha Falilou sant si Mbàkke bisu bi nekk xayra man nag daanaka maa ngi dugg école atum 2009 daanaka sept ans laa duggee école jàng naa alxuraan ma ah, jàng alxuraan ba sept ma dugg école def CI ma defee CI ba CM2 ma def sama CFEE après ma dugg ma euh, tàmbale def sama cursus collège euh, sixième cinquième quatrième troisième BFM am sama BFM ndax loolu lépp classique laa doon def ma boole franco arabe nga xam ñoom ñaar amul kenn dominé wu sa sa morom. après ci laa dem euh, centre Serigne Mbacke Bousso mooy xayra école Serigne Moussa Fallou defa fa def français nga xam foofu français bi moo dominé arab bi foofu na laa tàmbale daa jël série l ma jël ko ngir passion boog mën na woon na maa def série S mënoon naa ko ndax mat SVT PC mën naa ko def ba dama ciy génn macha allah mais yàlla dafa la ko mën bëgguma lool. li nga xam fa la sama passion nekk mooy série littéraire yàlla ko ma jël boobu noonu série L2 boobu noonu seconde première seconde j'étais première de ma classe premier semestre deuxième semestre terme euh, premier tamit euh, dama nekkoon premier sama classe premier semestre ak deuxième semestre terminal aussi ma nekk premier sama classe premier semestre ak deuxième semestre sant euh, examen Al Azhar yàlla bac euh, ci bac général bi bi état bi organisé ma am ci mention bien jël premier sama centre yàlla lu war tamit ma participer concours général jël troisième prix en histoire loolu moo nekkoon daanaka ci la gàttal sama sama cursus scolaire. jàng naa alxuraan jàng naa alxuraan waaye jotuma mokkal noonu waaye yàggal yàlla dogal naa xam naa ci lu bari bari. waaw euh, ginnaaw ba mu amee sama a li nga xam moo nekk sama passion li ma bëgg moom laa bëgg a suivre mooy wàllum diplomatie maa wàllum relation inter internationale moom laa bëgg a suivre boo léegi incha allah. Euh, tey euh, yàlla dafa dogal maanaam jëm monde bi sax fi mu toll nii pour l'instant nii nit ñi dañoo jàpp ni dañoo war a yem ci jàngum diine donc alors que monde dafa ubbeeku dangay ngay jàng sa diine jàng alxuraan xam yaay kan ba pare ubbeeku ci monde bi nag monde bi maanaam am yeneen compétence yoo xam ci ma ko mën ci yow li nga doon si wallum diine kon ñi nga xam moom lay ñaax sama mbokk mooy que ni tey jamono bi fi mu toll nii mooy da ngay xam sa diine xam ki nga doon daal di ouvert ouvrir nag si maam les compétences d'aujourd'hui maam les du vingt-et-unième siècle xam ne lépp mën a nekk nit ki gëmal li nga bëgg a doon xam li nga bëgg a doon boobaa incha allah yàlla lépp mën mën na ko doon